final bi dañu am cawarte ak mbégte pare ne ko pourquoi parce que ñun amuñu lu dul Guinguinéo amuñu lu dul sport dama ne dëkk boo ci nekkee dëkk defal la teranga parce que teranga mënta weesu dëkk defal ma mandat cinq ans pendant euh, pendant cinq ans assemblée nationale loolu dama ne beneen teranga bu ñëw dañuy tegu rek mais teranga mëntu ko lu ñëw dañuy tegu parce que loolu jiitu dëkk boobu nag kon yaakaar naa da nga da nga da nga war a fexe toujours nga nga fuuteeku di liggéey pour dëkk boobu donc loolu ci la nekk te dëkk ñi ko composé dafa bari mag ñi la ndaw ñi ak ay secteurs yu bari bari tey ñu ci ndaw ñi démb ñu ngi ci mag ñi ëllëg ainsi de suite rek ci jigéen ñoom ñëpp fu nit soxlaa daal luñ ci mën euh, bu baax demee nii moo ko organisé gis ngeen yi daw lépp ventilo tout ça organisé ko ba mu bien vraiment maa ngi remercier parce que dugal na ci loxoom bu baax a baax xam itam jéego ci def pour stade bi egg ce matin ni nga ko ni ñu ngi won ci def visite stade bi bu ngeen gisee loolu pour que yeen ñi nga xamné yeen ñu mëna jallal yeen yi ñu wan Sénégal ak bitim réew ne leen ñun am nañu problème problème la ban lañu am ci walu sport sun stade eggagul stade yi marché nak euh pratiquer nañ leen ba défarat leen te paré pareegul loolu c'est un problème c'est un réel problème vraiment au niveau de Guinguinéo donc euh, l'autorité vraiment nañu dimbalé moi je parle de l'État parce que moi, moi, am moyen yoyu pour dimbalé ñu suñu stade mën a àgg donc nañu dimbali ngir yàlla ñun appel boobu la ñuy def moo tax ñu ànd ak yéen wan leen ko euh, am na ñoo xam ne mën mënee nañ nenn ni maanaam di marche di xasteeka saaga ñun ñun bindewuñu noonu jàng néew ñu responsable fi dëkk boromi xam-xam bu ñuy wax nag dañuy wax ak responsabilité wax ak ci ak xam-xam ak ñi na war a waxal ñi na war a waxal nag mooy autorité yi te yaakaar naa daañu dégg récemment avant may ñëw j'ai adressé une correspondance au président de la République ci jëm ci jafe-jafe genge néew jëm ci jafe-jafe jeunesse bi mais jëm ci li ñu parrainé tey muy final di wàllu football bu ñu amul stade bu baax am ay terrain football basket handball ak yeneen yeneen sport nu mu épanouir mënu ma ko gëm mënta nekk nous avons des inspecteurs de sport yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey bu baax ay technicien de sport fii ci ci Guinguinéo waaye nag problème bi mooy amuñu ay jumtuwaay jumtuwaay yooyu nag stade bi gën gënu ko ci rëy kon nañu dimbale eggaleen suñu stade xam naa ne nag sax du gën ci noppu ki nga xam ne moo di ministre de tutelle mi Matar Ba bu yàggul rek dem naa bureau muy sama mag ju baax waroon na ñëw tey mais yàlla dafa dogal mu am contrainte dernière minute ñu nangul ko ko nag parce ñëwoon na fi nag nit doo deflee rek li tey li nekk a jàppaloo déedéet da nga woon na te loxoom ak jëfam jugul man xam nañ loolu baax a baax xam nañ ne sun taw bi djugul ci mom parce que recevoir na bu yag waxtan nañ ci ñu ngi ci fin de budget di entamer benen budget doit qui doit être adopté par l'Assemblée nationale donc de ce point de vue au mois de janvier wax na ma ñëwaat sét ci ko comme ça ñu caler ensemble vraiment euh, vraiment le redémarrage vraiment des travaux du stade de Guinguinéo pour que ñu mëna xam kañ lay paré djébalat ko vraiment la municipalité mu procéder vraiment à son inauguration. bu ñu seetloo euh, pourcentage yu chômage bi ci Guinguinéo dafa ëpp am nay ndaw yu fi nek yu jàmbaare bëgg liggéey waaye nak boko bëggé diko di ko wër te gisoo day metti euh, avons centre de formation yu yu yu la carte professionnelle heureusement que vraiment le gouvernement a une politique bu parce que nous ngi définir vraiment la carte professionnelle vraiment du Sénégal parce que li nga doon gis démb bu njëkk mooy formation yi mi nga doon am Kaolack euh, astafirwa euh, Dakar Thiès Saint-Louis.

waaye bu dul loolu rek vraiment dafay nekk loo xam ne pour jox la xëy day jafe kon nag état naam gars yi war nañu góorgóorlu waaye moom itam war na góorgóorlu fexe ba dimbale nit ñi ci ay jumtuwaay yoo xam ne dañu mën tàggatu bu baax a baax pour que liggéey mën na yomb